Duarte nek technicien portugais nek sélectionneur bu bees euh, ci Togo daal dinay ci éliminatoire mondial 2022 yi rawatina ci zone Afrique bi addu itam ci groupe bi nga xamanté Togo bokk na ko ak Sénégal mom nak li mu xamle mooy amul match bu yomb fi ci diwaanub Afrique ndax football africain nek na football bo xamanté dafa physique am tactique way itam équilibré japp na ni sax équipe yu ndaw yi dal dinañ def ay progression yu am solo mu japp itam ni Sénégal mom moy favori ci groupe H bi nga xamanté bokk ko ak Congo Congo Namibie itam Togo Paulo Duarte di wax ni li firndeel Sénégal équipe bu mag ak effectif bi nga xamante am équipe yu bokkul itam am même niveau bi teul mu gëm ni amul ben équipe bo xamante mën na moroomam match bi dañ koy daal di jouer match bu final narmom ndax moom amulben amul équipe bo xamante ragal nako, résultat positif lay wër ci bépp match boo xamante mi Le site numéro 1 du sport au Sénégal, Le sport.com,